Sene Info mbokk internet yi ñu bàyyi xel ci Sene Info point ak Sene Info International ñu ngi amaat mbégte di leen dégtale yor-yoru Sene Info di kontaan bu baax ci teewlu bi nga xam ne yéen a ngi koy euh, teewlu suñu différentes euh, plateformes yi comme niñ koy amalee rek ñëwaat ci li gën a fës si xëtu njëkku yéenekaay wante it amal ci ay euh, jàngat xam naa kon dañ koy tàmbalee rek. yéene yéenekaay bii di l'observateur ñoom nag dañoo fësal seen xëtu njëkk ba su tey bi ñoom nag njiitu réew mi Macky Sall dina indi ak coppite ci gouvernement bi la ñuy woowee remaniement loolu nag ñu ne démb xamal na ko sax ñi nga xam ne ñoom ñooy jëwriñ yi gannaaw bi ñuy amal ab conseil des ministres nee na sax kon bëgg naa amal li ci semaine bi nga xam ne kon nekk nañ ci kon balaa semaine bi di jeex daal wala boog ci fin de semaine ba bëgg na amal li ni mel fësalaat nañ it li nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko ak tekkaaral bi nga xam ne eh, fi mu nekk nii ca la ne gannaaw bi nga xam ne nag mu ngi kaso ñu ne loolu sax dafa mel ni ab lamp bu fay ci li nga xam ne moom mooy opposition bi ndax nag taxawaay bu am solo bi nga xam ne kon amoon na ko ci langu ko politique yi rawatina ci côté lii di opposition bi ba léegi l'observateur fësal nee na nag état bu Sénégal gannaaw bi nga xamee ne jël nañu dogal boobu ba léegi ngir suspendre nag eh, lii di TikTok eh, am ay restrictions yi ngi ci amal. fi mu ne nii nag euh, dañ ne daal euh, tant que euh, réseau social bii di TikTok joxewul ay daal loo xam ne ay gage maanaam loo xam ne daal dina wane ne dina mën di ko réguler nee na daal loolu amul li nga xam ne kon moom mooy restriction yooyu ñu jël ci lii di TikTok ñu ko teggi Serigne Mor dañuy jàll ci beneen yéenekaay moom mooy Vox Pop fasal lañ seen xët wu njëkk nag di ñu fàttali suñu maam Abdoul Aziz Sy euh, baax euh, nekkoon euh, xalif général de Tidiane ñu ne tey nag la def ñaar fukki at ak juróom mbenn bi mu génnee adduna ak léegi 14 septembre mille 2017 la woon suñu maam ju baax jooju kon ñu koy ko di ñaan yàlla xare ko aljana ñu gën a kawe yi ñëwaat nañ it ci li nga xam ne moom mooy choix bu Benno Bokk Yaakaar ci présidentielle ñu ne gannaaw Aly Ngouille Ndiaye ak Mame booy Diao. ak it euh, Abdoulaye Daouda Diallo xam nga Abdoulaye Diallo sax ñu ngi ñu ngi ñu ngi naan bésub tey bii boo moytul kon dina démissionné ci lii di kon euh, bopp conseil économique social et environnemental ñu ne it euh, ndax Abdoulaye kii nga xam ne moom mooy Mohamed Boun Abdallah Dionne ñu ne ndax moom it nekkul ne dafa bëgg a wan ginnaaw kii di jiite réew mi Macky Sall ba léegi ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu naataango yu di dikkaat ci. li nga xam ne eh, moom mooy eh, Diagna Ndiaye eh, di président commission nationale olympique mi nga xam ne nag kii di Pape François daf ko recevoir fële ca Italie sëñ Mor ñu jàll ci beneen yéenekaay beneen yéenekaay ak lu mu fësal moom mooy bés bi ñoom naka dañoo amal ab portrait ci euh, Mahammed Abdallah Dionne mi ñu doon tudd léegi di sax euh, wax ne ëllëgu politique am kon daal instant yi euh, la ñuy xool kon ba dressé li nga xam ne moom mooy ab portrait am ñu dikkaa it ci Aminata Touré mi nga xam ne nag dañ ko indil ab vaar vaar boobu nag ñu ne moom mooy bañ gi mu bañoon am ab débat ak lii di Ousmane ko Euh, wante it euh, li nga xam ne euh, moom mooy sàkku bi mu sàkku amal ab débat ak kii di kon kii nga xam ne moom mooy premier ministre ñu ne nag moom ñu ngi koy fàttali lànk ga mu lànkoon ne du amal ab débat ak kii di Ousmane Sonko ñëwaat nañ ñit ci président yu Sénégal ñu ne Senghor juuf Wade ak Macky yëpp ñoom ñëpp booy xool dañoo bañ mbir moom maanaam toog daal am débat ak ñi nga xam ne ñoom ñooy seen ay challenger ak ñi gën a fës ci lànk politique yi ne loolu booy xool ñoom ñëpp dañu ko bañ dikkaat na it euh, ci Abdoulaye euh, Sylla ak nag euh, fi mu nekk nii daal solidarité mondiale bi nga xam ne mu ngi am ngir dimbale réewum Maroc moom it daal mu wax taxawaay bi nga xam ne kon war nañ ko ca am wante it mbir mu am solo mi nga xam ne xalif général des mourides Serigne Mountakha defati na ko jël cent millions jébbal ko kon ñi nga xam ne ñoo loru ci boobule jéeye beneen yéenekaay Walf Quotidien la ñoom nag dikkaat nañ ba léegi ci présidentielle bu 2024 ñoom nag euh, dañoo def daal ab focus ci li ñu naan masse silencieuse maanaam xam nga tey am na euh, ñoo xam ne dañuy far wane fi ñu far am na ñoo xam ne nag dañ naan tekk élection bu jotee ñu jël seeni carte dem voté ñu ne nag loolu nekk nañ ay nit yoo xam ne mën nañu indi euh, ab bettaange mën nañu indi daal ab changement ci li nga xam ne kon moom mooy mbir mi ni muy doxee ñëwaat nañ it ci kii nga xam ne moom mooy Thierno Alassane Sall fësal na candidature am kon ñu jàpp ne moom it dina nekk li nga xam ne eh, moom mooy candidat élection présidentielle bi nga xam ne ci lañ jëm ba léegi it ñu dikkaat eh, ci eh, Cheikh Issa Sall mi nga xam ne moo utu Mame Boye Diao fa nga xam ne moom mooy kon caisse de dépôt et consignation démb ñuy téem ko moo ko fal wante it Lat Diop mi nga xam ne jugee na ci bopp LONASE moom Lat Diop sax am na ñu naan boo moywul dañ koy tabb ministre ci coppite yi nga xam ne war nañ koo indi ci gouvernement yi fan yi yëpp ñu dikkaay tit ci li nga xam ne moom mooy jeux nga xam ne de la jeunesse JOJ Dakar moo ko war a organiser en 2026 loolu nag tax na ba Mamadou Diagne Ndiaye Pape François recevoir na ko foofu la ca Vatican témoin yéeni kaay fësal seen xët bu njëkk ab reportage exclusif boo xam ne nag dañ ko amal fële ca Bignona ak Ziguinchor dem nag séq waxtaan ak waay juru ñi nga xam ne xale yi deewoon ci manifestation yi kon am nañu ak ñoom li nga xam ne moom mooy ab euh, waxtaan wante it dikkaat ci daaw Daouda Diallo mi ñu ne nag départ am nañ ko ci bopp li nga xam ne moom mooy euh, conseil économique social environnemental ñu ne it gannaaw loolu ana lan mooy nekk ëllëgam beneen yéenekaay seen moor euh, le quotidien lay doon ñoom nag dañoo dikk Golf Sud ñu ne nag beneen effondrement kon immeuble amatina ci réew mi mu nga amee Golfe Sud euh, ñu ne nag am na ab euh, koo xam ne sax ñàkk na bakkanam ñu génne ko kon ci mbir yooyu loolu nag day posé waat débat li nga xam ne moom mooy ay bâtiment yuy yuy daanu bëri na ci réew mi te lu bëri dañuy gis ne ay nit dañ ciy loru dañ ciy ñàkk seen bakkan muy loo xam ne nag muy defarkat yeeg ñu war a surveiller des ko ñëpp daal war nañ si jël ay matuwaay ba li ni ñu mun ko moytu ci réew mi ñëwaat nañ it ci euh, li nga xam ne moom lañ doon wax sànq muy nomination ya Cheikh Issa Sall dem na euh, caisse de dépôt et consignation Lat Diop jóge na fi nga xam ne moom mooy euh, Lonase beneen euh, yéenekaay la Soleil fësal ci xëtam bu njëkk président Macky Sall nag miy laaj li nga xam ne moom mooy nguur gi jëwriñ mu ne mu leen laaj daal ñu amal ab document bilan ci nag li nga xam ne nguurug Sénégal jot na koo def ci wàllum éducation njàng meeg njàngale mi nee nañ daal kon gouvernement mu ngi xaar ci ñoom ñu amal ko ab document boo xam ne bilan lay doon ñu ñëwaat it ci ab entretien bu ñu amal ak Amadou Ba di premier ministre nekkit candidat bu Benno Bokk Yaakaar ci li nga xam ne moom mooy élection présidentielle bu ñu ne nag moom mooy moom nee na njëkk mooy daal confiance bi nga xam ne njiitu réew Macky Sall jox na ko ko ba kon daal euh, tabb ko mu def lépp daal ba boobu kon euh, mu cee am daal mu bañ cee indi loo xam ne ay bétaanga lay doon ak yu wante it mu ne seen ambition moom mooy lii di PSE muy plan Sénégal émergent bi nga xam ne njiitu réew mi da koo teg ngir nag kon doxal surtout ci wàllu koom ci Sénégal ne loolu nag bëgg na ko gën a euh, dëgëral dikkaat na it ci li nga xam ne moom mooy relation yi ñu am ñoom APR seen biir mu ne nag euh, da koy wax ñoom daal ay frère ak sœur maanaam mag ki rakk lañ jàppee seen bopp te loolu it euh, la ñuy dund beneen yéenekaay Serigne Mor Libération ñoom nag dañoo fësal seen xët wu njëkk ku ñuy woowee Ousseynou Bodian ñu nag moom jàpp nañ ko ca Diouloulou gannaaw bi nga xam ne dañu ne dafa nag faat ñaari policier ca Gambie dawoon nag booba léegi ñu koy wër teg nañ ko loxo kon ca Diouloulou euh, ñëwaat na it ci Thierno Alassane Sall mi fësal candidature am ci élection présidentielle bu 2024 moom nag euh, muy xam ne daal ci liggéey bi nga xam ne mos nañ ko ko dénk lépp ci wàllum daal euh, nguuru ko Sénégal def na ko nee na daal li nga xam ne moom mooy devoir citoyen mos ko fayir musul def loo xam ne daal kon euh, dañ ko koy ŋàññee wala euh, yi ni mel lépp loo xam ne daal mu ne am na ko séq koog réewam euh, dox na doxal na ko ci li mu waree beneen yéene kaay direct news la ñoom nag dañoo ñëwaat ci mu ne la république des inspecteurs des impôts maanaam li nga xam ne dañoo nekk ay hommes politique wante it jot a nekk li nga xam ne moom mooy ay inspecteur d'impôt bokk na ca Amadou Ba kii di Abdoulaye Daouda Diallo Ousmane Sonko. Mamboy Dia wante it Birima Mangara ba léegi ñu fësal solidarité aux victimes du séisme maanaam lu am solo li nga xam ne sëñ Mountakha def na ko dañ dañ naan sax defati na ko du lu njëkk du guleet kon muy jël ay euh, koppar di ko jox ñoo xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe bi bi la nag cent millions de francs CFA kon la sëriñ Mountakha jébbal ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Maroc nekk nag ci ay jafe-jafe gannaaw bi fa suuf si yëngoo ñu bëri ñàkk fa seen bakkan beneen jéey it am na ca libi eh, sëñ Mor foofu nag ay inondation ay taw yoo xam ne daal day ànd ak ngelaw moo fa am yu métti ba it lu jege quatre cent mille kon trois cent trois lu jege bokk ma ne quatre cent mille <laughs> lu bëri na lool. lu jege daal eh, quatre mille personnes ñàkk nañ fa seen bakkan booy xool trois mille huit cent personnes kon gannaaw Maroc it kon libi ñu ngay jooy seeni ay néew. beneen bi yéen a kaay mooy l'info déclaration de candidature à la présidentielle. taas boo ko déggee mooy Thierno Alassane Sall ñu ne sa jet kon nag ñëw na yegg si na waxit ana lan la yéene ana lan la bëgg a liggéeyal li nga xam ne moom mooy euh, réewum euh, Sénégal wante it dikkaat nañ ci Sénégal euh, Algérie mi nga xam ne kon match amical la dañu sax amoon ci défaite 1-0 dikkaat nag ana mm, ay calcul ñoom jàpp ne kon kii di Aliou yu baaxul la def ci boobule match ko wante it nga xam ne moom moo. uutu euh, kii di euh, euh, Lat Diop ci bopp fi nga xam ne moom mooy Lonase nee nañ nag boobule droit booy xool sax kon dañ ko ko tabb ndax nag moom Mame Boye Diao ñoo bokk fief moom Mame Boye Diao mi nga xam ne kon démission dàq nañ ko ci caisse de dépôt consignation ñoom ñoo bokk fief seen dëkk ñu ne nag kon dañ koo daal tab ngir nag bu campagne bi ñëwee mu mun a kon jàmmarloo ak moom foofale ci seen ba gox beneen yéenekaay seen mor les écoles la les écoles yéen kaay fësal seen xët wu njëkk ab nag euh, mbir moo xam ne mu doy waar la bu am fële ca tali maam jaara ca Fass Mbao ñu nag euh, police dafa ñëwoon ngir nag arrêté benn euh, chef de gang wante nag gars ya daal ñoo membre gang ba ñoom ñoo taxaw ne daal du fi amee. damarloo ak policiers yi ba ñu ne sax finalement policiers yi dañoo mujjee libéré. waaja euh, wante it kenn daal jàpp nañ ko kenn koo xam ne ci ci ci ci ci la bokk jàpp nañ ko wante daal ñu ne kay chef de gan ba moom dañ koo mujjee euh, dañ koo mujjee bàyyi. ñëwaat nañu ci li nga xam ne moom mooy euh, première quatorzième législature muy assemblée nationale fi mu nekk nii am na at gannaaw bi nga xamee ne moom lañ ko taxawal ak léegi mu ne nag wante lañ doon séntu muy ab rupture ak yooyu doon xaar daal gis nañ ne daal daanaka amul en tout cas ci wàll boo xam ne daal ay xeex ak waxante yu ñaaw yooyu nga xam ne dañ ko doon nemmeeku ci assemblée yi weesu booy xool daal mu ne gis nañ ko fi kon euh, côté boobu daal li nga xam ne moom mooy rupture bañ doon xaar amul sëriñ Mor beneen yéenekaay euh, ban lay doon tribune tribune nag euh, dafa dikk ci li nga xam ne moom mooy ay démission mu ne nag ñoo xam ne ci lañ lañ bokkoon démissionné mu ne nag boo demee Jolof am na ko fa démissionné Fuuta am na ko fa démissionné te Fuladu am na ko fa démissionné mu fësal li mu wax nee na bennoo dafa nekk en danger ci li nga xam ne kon moom mooy gox yooyu ak gox nga xam yoo xam ne nekk na ci réew mi ay responsable nekk fa kon nekkatuñ ci nguur gi ndax loolu dina indil gars yi jafe-jafeem si kanam raw li gët ñëwaat it ci li nga xam ne euh, moom mooy euh, Serigne Mountakha Mbacké lu am solo la mu def yëkkati lu toll ci cent millions jébbal ko waa Maroc gannaaw biñ nekkee ci ay euh, jafe-jafe. yoor yoor fësal seen xët wu njëkk nouvelle hymne de la Renaissance muy maanaam daal wuy yi nga xam ne fi mu nekk nii moom la ñuy nemmeeku te ñëpp ñu koy woowee sonkorisation maanaam Sonko namm naa la boobu nga xam ne dañ koy dégg ci stade yi ñoom nag dañoo jàppee ne ab sance patriotique la euh, ñu gis ne nag loolu mu ngi déranger li nga xam ne moom mooy autorité yi te mu ngi leen di yàqal nelaw man it euh, loolu daal li ma ci gis moom mooy encore une fois li may waxaat euh, yoo xam ne njiit loolu da koy ñàkkal fu ñoo xam ne jàpp nañ seen leader peut benn moyen boobu lañ am pour wane ne pour wone seen seenu naqar ak yooyu nañu leen bàyyi nañu leen bàyyi ñu woy seen ay woy ñii bu ñu woyee suñu ko nama naa la bu fekkee ñeneen Macky Sall lañu wax ñu ne Macky ñun ñoom tam ñu rek c'est la même chose mais buñ ne mais mais comme réew droit lañ nekk liberté d'expression la démocratie la ku ku nekk lu ko neex nañ ko bàyyi mooy ko dégg naa ci it euh, bu ma juumul euh, benn fële la fu ñu xama ñu ne ki nga xam ne moom mooy préfet ba dafa daal dakkal ab euh, tournoi boo xam ne dañ ko tuddee présidence Mansour Sonko mais o nom de quoi au nom de quoi dañ ko tuddee nañ ko ko ñoom am nañ seen seen seen seen seen liggéey moom mooy bu loolu amee ndax nee nañ ay trouble dañ doon ragal ay eh, kii am fa dañ doon ragal daal dafa amoon ay menaces ay risque de menace trouble am mais kon ñoom lan la ñuy jëriñ takk der yi loolu mooy tax a jóg bu fekkee xalaat nañ ne ay menaces affaire bi day waaj am ñu jël nombre bu nombre bi nga xam ne moom moo war yóbbu ko stade bu kii amee ñu ñu kii ko bu bu bu ay en tout cas. xeex wala affaire yi amee ñooñu kii ñoo ñooñu ñu def seen liggéey quoi mais pas ñuy tere ay nit ñuy wëy Sonko nam naa la wala ñuy tere ni ñuy tournoi parce que loolu daal euh, day niru leneen ñëwaat na ñit ci li nga xam ne moom mooy Gambie bi li ma waxoon sànq ñaari policier yañ fa faat ak nag euh, kenn ku ñu gaañ wante nag euh, ka def mbir ya wala boo ka njort ne moo def mbir ya teg nañ ko loxo beneen yéene kaay sëñ Mor ban lay doon stade yéene kaay yi ñoom nag dañoo dikkaat ci li nga xam ne moom mooy Sénégal Algérie bi ba léegi ak ab def maanaam ab jàngat bi ñu ci amal gannaaw match bi ñu ñëwaat nag ci li nga xam ne eh, moom moo dox ak li doxul ba tax ñu ñàkk boobule eh, match wante it eh, dikkaat nañ it ci Aliou daal ñeen jàpp ne daal coaching bi mu def boobu naan match boobu daal na mu ko géré baaxul Serigne Mor. réew mi quotidien la ñuy euh, jëm ñoom nag dañoo fësal seen bopp njëkk Macky Sall Abdoulaye Daouda Diallo ñu ne nag la rupture maanaam daal kon seen ko tasaaroo seen taqaliko fi mu nekk nii euh, am na ñu ne nag euh, ñu ngay njortu bu fekkee ne moom démissionné na démission boobu sax ñu ngi ko doon xaar ñu tey ñu ne ñu ngi ki nga xam ne moom mooy Mohamed Boun Abdallah Dionne mu dem foofule ca conseil économique social environnemental di kaat na ñiit ci remaniement bi nga xam ne am na ci nguur gi ak nag euh, kii di Lat Diop euh, mi jóge ca bopp euh, LONASE laas yéen kaay fësal ci xëtam bu njëkk ba léegi nomination li nga xam ne amal nañ ko démb Cheikh Issa Sall ñu ne jóge na ADM fi mu nekk nii nag mu nga ca caisse dépôt et consignation wante it Doura Baldé mi nga xam ne moom la fal ci li nga xam ne kon moom mooy kees de dépôt et consignation mu uutu fa. Abdoulaye euh, Daouda euh, Diallo njëkkaat ci Amadou Ba mi nga xam ne nee nañ fi mu nekk nii daal mu ngi euh, commencé kon tegi ngir kon ana naka lay amalee daal campagne am jëm ci élection présidentielle beneen bi yéen a kaay sëñ Mor moom mooy enquête enquête yéen a kaay nag ci présidentielle de dikkaat ba léegi ak Karim Meïssa Wade Karim Wade nag li ñëpp di wax daal moom mooy ab candidat. fantum maanaam daal candidat la boo xam ne kenn gisu ko moom daal nee na candidat la wante daal euh, kenn gisu ko ci réew mi fa mu nekk daal euh, kenn du gisit vidéo dégg euh, am na sax ñu naan li nga xam ne da koy bind communiqué yooyu nekkul moo koy bind dañ ko koy bindaal ak yéni mel nekk na candidat boo xam ne daal jaaxal nañu ñi parce que candidat boo xam ne cinq mois la ñuy wax moo des ci élection présidentielle kenn gisu la lu doy waar lay doon dikkaat nañ it euh, ci waaw wala boog ñu jàll ci Sud Quotidien mi ñëwaat ci candidature présidentielle ba léegi ñu ne nag euh, Abdoulaye Daouda Diallo daal fi mu nekk nii moo jaaxal ki nga xam ne moom mooy Macky Sall ndax seen diggante dinañ tàqali comme ñu ne nag ki nga xam ne sax moom mooy Thierno Madani Tall ak Medina Gounass ñu ngi leen di woo ngir nag ñu waxtaan ba seen diggante ñoom ñaar ñu bañ a tàqali ko ñu ne wante ki nga xam ne moom mooy Arona Dia nekk it koo xam ne war na caa mën a wax. ba ñoom ñaar kon daal euh, seen ko diggante du fi jaaree yàqu xam naa kon dañ koy daanale rek ci sud quotidien boobu di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, euh, internautes yi di jaajëfal sëñ Mor mi nekk ci régie bi di leen jox dig daje ëllëg jaa ngeen jëf. SeneInfo International